kon daal li amul solo mooy nit koy mer ci ay neen wala ngay gaaw a mer te mer ci lu ko jërut comme niñ ko waxee du defar ak dund te du defar ay diggante te wax nañ fi itam diggante yu bari yi nga xamante ni men na mer mën na koo yàq diggante ay dëkkandoo diggante ñaari way dencante diggante ñu bokk ab liggéey diggante ay mbooloo mën a yàq itam diggante réew ak moroom ja ndax xeex boo fi gis mu jàppaloo wala ab xare bu am ci diggante réew ak moroom ja lenn waralu ko lu dul ay nit yu jiite réew yooyee te mënuñoo téye seen bopp ginnaaw bañ meree loola moo sookale guerre yooye ba mu am seen diggante su fekkee nit ki xool na boppam ba gis ne mer ab xaaj bu am solo la ci ak dundam na ko wóor ne li muy yàq moo ëpp la muy defar kon kuy mer ci lu ko jërul la muy yàq moo ëpp la muy defar loolu la ñuy wax naan ida asbaxa alxadabu juz'an min xayaati l insaan fa inda idin yakunu maa yuxarribuhu akthara mimma yuammiru kon man mer mën naa yàq addunay merkat ba te mën na koo tàbbal sawara sax wala yaasu billah yonent bi alei salaatu wasalaam nag daana mer waaye mbiram boppam ak bànneexam daawut tax muy mer laa yaxdabu li waaye wa kaana min wasfihi annahu laa taziiduhu siddatul jahli alayhi illa xilma ku ko masaa dënge moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba wax ko wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw loola du la ko delloo waaye da koy dolli ak lewet kon daana mer moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waaye ci lu ko jar te la ko jar mooy buñ ñu xor may yàlla foofa rek la meram daan ame te bu meree booba dana tar lool foofa la meram daan feeñe te julit bu nekk itam foofu la war a nekk moo tax sëriñ bu mag bi radiallahu anhu foofu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jaaroon la jaaroon bu amee ko naqari la ko daan naqari mooy buñ ñu xottee xormay yàlla ndax ba ko noon ba dajale lay xaalis ba ba def ab takk mu jox ko ko ne ko lii mooy sa yàlla booba yëngal na sëriñ ba ba mer ba fab xaalis boobee na ko xërëb jóg di wax ba itam yooyee ba ñaq tooy xip yadi li moxnin karimin naafiin samadin laa di darahima tati min sulaytini sama loxo su ma ko dee tàllal kenn laa koy tàllal te mooy yàlla may aji doylu ka nga xam ne ku am moo jox mooy ku tedd ka mooy ka nga xamante ni mooy jariñ te kenn du ko jariñ mooy kilifa ga waaye lu ma ko tàllal ngir jël ay dërëm yoo xamante ni as mbuuras àdduna laa koy jëre kon mer ci lu ko jar te mooy buñ xottee war may yàlla loolu tax ñuy wax moo tax abu hurayra wax ne am na waaj ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko tënkal ma loo may dénk te mu tuuti dama bëgg nga dénk ma yoon yonent bi te dénk bi na tuuti yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko laa taxdab murni bi amalin wa aqlil qaala laa taxdab summa aada alayhi fa qaala laa taxdab bam ne ko dénk ma te tënkal ma dénk bi bam tuuti dana ko bul mer wala bàyyi mer ngir xam gam xam ne la mer mën a jur abdullah ibn umar radiallahu anhuma wa itam moom ci boppam nee na waxoon naa yonent bi alei salatu ne ko tënkal ma lu tuuti lu ma mën a jàpp ba mën koo jëfe yonent bi ne ko bul mer nee na ma mel na ku xeeb loola daal na ko teg ma dénkaat yonente bi delluwaat ca benn baat ba te mooy bul mer laa taxadab abdullah ibn amro itam wax ne am na bis mu laajoon yonente bi alayhi salaatu ne ko ana lu ma mën a xett li ci meram yàlla yonente bi na alayhi salaatu wasalaam ne ko xanaa nga bàyyi mer kon soo bàyyee mer loola dana la musal ci meram yàlla tabaraka wa taala abdullah ibn mas'ud itam nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam masaloon na leen a laaj na leen lan ngeen jàppe ak mën a lan ngeen jàppe ak mën a ak mën daane ñu ne ko ñun de lañ ca xam mooy mbër ma nga xam ne su demee ca làmb ja kum bëril daan la loolu lañ ca xam mu ne leen demewut noonu de waaye jàmbar dëgg dëgg dëgg mbër dëgg dëgg mooy ka nga xamante ni su meree mën a téye boppam walakin alladi yamliku nafsahu inda alxalab akrama radiallahu anhu itam la sunu borom wax ca laaye fanweer ak juróom-ñeent ci aali imran ne wa sayidan wa xasura ba ko firee dane assayidu huwa sayidu alladi laa yaglibuhu lgalab mooy njiit loo xam ne mer du ko jiital waaye xelam moo koy wammat abu darda itam wax ne damaa waxoon yonente bi alei salaatu wasalaam ne ko tegtal ma jëf joo xamante nii fee danaa ca mën a tàbbi aljanna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko mooy xanaa nga bàyyee mer nga bàyyi mer moo tax boroom xam-xam yu bari àddu nañ ci alxasanul basri dane yow doomu aadama na la wóor ne mer amul solo ndax boo meree mën ngaa dem bay cëpp-cëpp di tëb di dal ngir doo mën a téye sa bopp te boo dee tëb di dal bis mën naa ñëw nga tëb far tàbbi sa wara wala yaasu billah kullama gadibta wasibta wa yuusaku an tatiba fa taqan fi nnar moo tax sëriñ tuba radiallahu anhu ca masaalikul jinaan mu ne woon ama xamiyatun wa kasratul gadab wa xiddatun wa dayqu sadrin bitaab fa hiya min axlaaqi seytaanin lain aadana almuinu minhu kulla xiin nee na bariw tàngoor te day am ci nit ñi koo xamante ni dafay bari tàngoor bari mer ak bari xët-xët ak xatab dënn nee na yooyu yëpp benn amu ci solo ndaxte jikkoy seytaane la te jikkoy seytaane nag jër kon koo gis mu koy ndamoo ci naan man dama bariw tàngoor wala man suma melee kenn du ma téye wala dafa dama bari xët-xët wala sama xol dafa sama xol dafa xat yooyu nee na jërta ndamoo ndax boo ci tànn rek sëriñ tubaa nee na loola jikkoy seytaane la yàlla nañ ci yàlla musal mer nag am jeexit ju bon ju muy indi ci doomu aadama bay mer am na jeexit ju muy indi ci làmmiñ am jeexit ju muy indi ci yeneen cër yi am jeexit ju indi ci xolu kay mer bokk na ca jeexit ji mer mën a indi ci làmmiñu doomu aadama mooy nit ki su meree mën naa saaga te saaga bon lool mën naa wax wax ju ñaaw joo xamante ni moom ma mer su meer ma giife buñ ne ko yaa waxoon lii mu ne wax ma ko kon ku nekk xam na ne mer dana andi jeexit ciw làmmiñ ndax dana tax doomu aadama wax ju ñaaw ak saaga di génne ciw làmmiñ te loolu jullit bu nekk war na koy daw mer itam am na jeexit ci yeneen cër yi ndax mer dana tax nit ki doore dana tax muy tëj xar kanamam dana tax muy xotti ay wala muy xotti yërey kam mere dana tax mu rey nit dana tax itam mu mu mën a gaañ nit te yooyu yëpp nag ay jeexit la yoo xamante ni amul njariñ ndax dëgg-dëgg wa man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadi jullit dëgg-dëgg mooy ka nga xamante ni téyal na mbokki jullitam aw làmmiñam ak loxoom du leen ca def lu leen naqari waaye su leen ca defal lu leen naqari itam day def ca sa aw loxoom aw yiw jëme ko ci ñoom aw làmmiñam mu cay wax aw yiw jëme ko ci ñoom ndax kooku merket ba mën a dóore mën a tëj xar kanamam mën a xotti yëram mën a raye mën a gaañe mën naa fekk sax ngir meram ma loo xamante ni du dooma ma mu di ko wéq dóor sax mën naa fekk ab bool mu wéq ko ngir meram ma mën naa def fi yoo xamante ni ku àndut ak xelam moo koy def mën naa fekk aw bàyyi ma sax mu koy saaga te xam na ne du ko tontu yooyu yëpp mer dana koy andi moo tax mer amul solo mer itam dana andi jeexit ca xolub kay mer ndax dana tax kam mere mu koy bañ te bañ ab julit baaxut dana tax mu ëmbal ko ak añaan dana tax mu nëbbal ko aw lu bon dana tax su fekkente ni musiba wala am natt wàcc na ca kam mere mu yéene ko ko dana tax itam kam mere su nekkee ci mbégte moom mu nekk ci njàqare dana tax itam kam mere fu mu gese gise ab sekkareem di ko tasaareel dana tax mu koy saboote te yooyu yëpp nag benn ci baaxut te mer dana ko waral ana kon nag lan mooy indi mer ci doomu aadama bari na waaye kon da koy tënk ji rëy ak yëg sa bopp ak bari kaf ak di saboote keneen te yooyu yëpp benn amu ci njariñ kon nag la koy dindi ci nit ki nag mooy safaan yooyu mooy troxlu ak xam ne yaag nit ñëpp a yem menn maam ngeen am muy aadama ak xawa te bàyyi kaf ju bari rawatina kaf goo xam ne ci ay caaxaan rek la te fopp sa mbir yëpp nag jëme ko ci yi nga xam ne moo ëpp solo ci diine ji waaye bokk na ca yey dindi mer nag ngay xalaat ngëneel li nekk ci nëbbu mer ak tagg gi sunu borom tabaraka wa taala tagg kuy denc meer ci wal kaadimiina al xaysa wal aafina ani naas nga fexe ba ragal mbugalam yàlla ma tabaraka wa taala ndax itam di muslu yittam waxtu wu nekk ci seytaane di wax auzu billahi min aseytaani rajim ndax saytaane kat dañoo wax ne mer mi ngi jóge ci seytaane te seytaane dañ ko binde ci sawara te sawara la koy fay mooy ndox kon nee na boo meree na nga jóg jàpp-jàpp mu sell te julli ñaan yàlla mu dinde ko ci dindi ko ci yow kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla sa tabaraka wa taala mu yàggal fi sëriñ bi te may ko fan bu gudd ak wér ba mu àggal na alam yi te ànd kooku moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu